Anda ak yéen ci bu am solo bi nga xam ni dañuy sant di ñaanal di sering sëriñ Modou Rokhaya jàmbaari seexul xadim bi waaye itam bi di sëriñ Fallou Galas Sylla di ko amal tey jii nag fii ci dëkk bu bi nga xam di Daaru Salaam di dëkk bi seexul xadim am ci ay dëkkam waaye nag euh, sëñ Modou Rokhaya ñëpp xamoon taxawaayam ñu taxaw ki nga xam ni di sëriñ Balla Gueye sëriñ di borom taxawaay di borom pas-pas di koo xamante ci jàng ak jàngale rek lañ ko xamee bés bi itam ci appel ba léegi ñi ko àndante ak tey jii itam mu ñëwoon ci bés bi ñu bëggoon rek nga tënkal ñu ci lenn ci sëñ Modou Rokhaya ak taxawaay bi nga xamante tey sëñ Fallou am na ko ci Daaru Salaam ndax ay maamam nii lañ taxee woon moom itam ba mu dikkee delloo bu boy boy ga sëñ Balla bisimilah. jërëjëf sëñ Moussa Diop ñu ngi nuyu mbokk yi baax di leen siyaare di leen nuyoo beeg siyaare bi Cheikh Moundakhal Bachir ngeen yàlla gën koo yàggal lool te gën koo wéral ñaan si Ebo Mouhamad xale bi Cheikh Mouhamad Mamoun Daaru Salaam ak njabal borom gaawaan gi yëpp waaye di siyaare nag soldaaru Daaru Salaam mu si Cheikh Anta mu Cheikh Modou Roqeya ñaan yàlla gën ko yàlla gën ko wéral ba lim yéen liggéey Serigne Touba lépp ci ko Cheikh Modou Roqeya mu def ko ni mu ko soobee comme ni ko sëñ Moussa waxee rek sëñ Fallou moom maa ngi koy tooñ léegi ko maa yow ak ñu bari moo ñu formé comme bisam bu ñëwee wax yàlla kenn ku am nga sañ-sañ ak fierté pour man kii àddu kii ni ci war a àddoo taala sëñ Modou Roqeya nag koo xam-xam ni ku baax

ku ma ko waxale danaa ma si mu jaral na ma jàng kaamil mm-hmm. mu wax ko daanaka yi ñu jàng ñi ci ëpp man naa am si mu roqee bëgg ñu ko bëgg ak daal leen taxawu Magal Daaru Salaam ci jàng kaamil koo wax ka sëñ Moustapha Guèye Ndiaye si Ilimaan Guèye jàng na arabité bi sëñ xaali jax sëñ euh, xaalim Jóob sëñ daam ñu ngi xaali yëm bu soobee kenn ku nekk rek jox nga lim boo xam ne li ko waral mooy si mu roqee yi nga ko yàgg amel cofeel goo xam ne kenn ku ne bëggoon nga bisam ñëw ba nga def ci dara mm-hmm. teew bisu yeesu bi mu ñëwee Jangan nañ kañ waaye tey même suñ fa la woote waate kenn ku nekk li muy xar ak li muy jege ku ne ba bi agna na àgg nañ 81 kaamil musa day mel ni kon bëgg gi mu buah lu baax te nekk créateur boo xam ni ak formateur boo xam ni yombut a roy hmm. waaw yombut dab hmm. wax ni Gassama say musa ko xam mu xamul ak liif si Moudou moo ko sol ba mën a jàng ba bari isbi jang ci moom lañ ko jëlee hmm. loolu tara dara Cheikh Abdoulaye Cheikh woon damay jëlee ñu wasalallaahu ñu koy jàng ñëpp mooy seen doyen. Mhm. ki ko tabb ba man loolu sa mu roqee boo ñëwee ji si wax na ni si mu roqee pëstee fam waa nga suñu tubaab ñëpp ko seede sëñ di wax loolu Cheikh Saalix si mu doxaay mi ñu waxee léegi nii ni moom la rëcc ak pësteef ak bëgg lu baax mhm. kon yaakaar naa bu yoree sëñ galas def ko ni mu ko def ba sëñ galas ba woote bis bi kenn ku ne sëñ Moussa dana am fierté ak mbégte mhm. ñëw teew ba léegi nii nag moom man nañ ko roy waaye mu ki mus ko dab moom ki mu ko dab monsieur Bodo Xeyam bëgg sin Touba ga am talibé ga bëgg doomu aadama bëgg doomu aadama loolu sax lekkat maanaam moo waral sëñ Fallou di ko woote bis bi nga xam ne sëñ Moussa yéen ñëpp war ngeen seen taxawaay yi amee solo ñëpp ñëw ànd ko moom ngir lan cheikh mu do xé la ki ta fay ki la ki mën ta jot ci asake fay ko mu tuddé ko seigne abdou wodor mu tuddé ko seigne wodor mi nga xamni jokk ak mbokk itam jokk ak mbokk ma sha Allah ci abdou wodor mom nek doom ci afia ci mu roxé masna and ak njaboru dar salam gep dem njaareem kër sëñ Afia ci dëggu doon nag daa bëgg ñëpp xam ni kër gi benn la defar digg kër sëñ Afia sëñ Gaawaan ba mu nekk benn jàpp njaboot sëñ Afia gi sëddee yëpp def leen ni moom moo war a sëñ ab Fall ak jokk mbokk am na ci te ak mbokk sëñ Moussa yàlla nee na maa ko jëlee ci sama tur mi wax arrahman ku ko jokk ma jokk la ku ko ma dog la kon sëñ Galas day mel ni yàkka yàkkalewaat na diggante digg sëñ kër avec sëñ Gaawaan waaye yàkkalewaat digg sëñ Roxi ak sëñ ah, Abdou Wadoud macha allah taala ba lépp sëñ Moussa luñ cee mën a mën nañ cee royee daal bëgg sëñ Tuubaa bëgg mbokk bëgg alxuraan bëgg xasaayid bëgg boo xoolee doomu aadama bi sifa am ma hmm. danañ yàlla fay si Mudu Roqee yëpp sëñ Cheikh Anta nekk yàlla gën ko yàggal gën koo wéral bala mu ñëwee liggéey sëñ Mudu Roqee mu liggéey ko ànd ak njaboot si Mudu Roqee ak yëpp yàlla a def jàmm ci réew mi sëñ Moussa hmm. gën ñoo taxaw fooxeerama baat nan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bésu tey bi ñu sant sëñ Mudu Roqee waaye itam dañ koo tuddee ki nga xamante ni mooy sëriñ Abdou Wadoot moom sëñ du Farmata moom maam Cheikh Anta kon yaakaar naa ni suñu waxee loolu rek xel yi dana yegg ci ni moom sëñ Afia bokk xel yi dana yegg ci ni ak mbokk la sëñ Fallou Galass Syll la di doxal foofu ñu yëkkati kàddu rek jox sëriñ bi mu indi kàddu yi seere ak témoignage waaye itam kàddu digganteem ak sëñ Fallou mi nga xam ni moo tax tey mu jóg ci santuk sëñ Modou Rokhaya gi. waaw ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp te day sant ñëpp di rafetlu bis bii nga xam ni dañ fee ñëw ànd ceeg sëñ la ñu xam taxawaayam ci daaru salaam ak taxawaayam ci yoonu murit gépp waaye nag mu di ci sant sëriñ mu Rokhaya mi nga xam ni mooy buntam ci kër sëñ gaawaan waaye dafay mel ni kon ñun la koy santale ndax sëñ Modou Rokhaya kenn ku ne xam nga taxawaayam bi mu am ci daaru salaam jëf jim jëf ci yoonu murit ci taalibe ànd gi mu àndoon ak sunu waajur itam doonte mu doon doom ci moom waaye ñu déggoo woon lool ndax boo xoolee sëñ Modou Rokhaya ba mu tuddee maam Cheikh Anta tuddee sëñ Modou Mamoun sëñ Ibra Ndar la ci teg mm-hmm. kon loolu wane ne ni seen diggante lu rattax la woon lu dëgg la woon lu rafet la woon kon nag bu ko sëñ Fallou di sant kon ñun la koy santale ñun ñoo ko waroon def te xam nañ taxawaay bi mu taxawoon ci yoonu murit nekkoon murit saadex mm-hmm. taxawoon taxawaay bu rafet di sagal daaru salaam di sagal yoonu murit fu ñu mën a tollu bari na ci ay xise yu ñu mën na wax waaye jataay bi duñ ko may tuddee giñ ko tuddee sëñ Modou yi tam di kenn ci njaboot gi di njabootu sëñ Afe te sëñ Afe ak maam Cheikh Anta ñëpp xam ni ñu demee sëñ Modou Farmata it noonu la amee woon ak relation suma waajur ba dégg naa sëñ Ibra Ndar daana ko gane ji kon loolu itam Euh, dañ koy rafetlu kon bu ko tuddee mel ne tuddee ko tuddee na ko njaboot gépp bu jëlee pare na ko itam sëñ bas Abdou Khadr ak soxna Momi kebe mel na ni loolu itam dañ ci am ak cant ak rafetlu ndax sëñ bas ñëpp xam nañ taxawaay bi muy taxaw ku fi nekkal sëriñ Touba ak sag gi muy sagal yoon wi ci jëf ci wax hmm. ak ci teewaay fu foo xam ni mag ña seen tànk eggu fa mu egg egg fa fu seen kàddu eggul mu eggale ko fa maanaam amul lenn loo xam ni sëñ bas mas naa wax ba nga mën cee teggi dara ci diingat wala ci ñaawal kon lu muy def wala luñ ko tuddee lu ne loolu dañ koy rafetlu di ci sant soxna moomu kebe itam di sunu wëllëre bu yàgg so ñu xamante woon kër soxna moomi ba nga xam ni soxna Garda Bousso moo ñu boole woon ak moom mm-hmm. ñu daan defee foofu avant première bisu soxna moom yi muy nit ku doon murit saadex te ñu ngi dégg bu baax jëf yi muy jëf te gëj nañoo gisante waaye jëf yi muy jëf ci yoon wi loolu ñu ngi koy dégg di ko rafetlu mm-hmm. kon daal bis bi lépp rafet kon sëñ Fallou dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal mu yàgg teewe euh, taxawee bis bi ñu yàgg ko teewe te lépp lu luñ ci def ci ñaan ci alxuraan ak xasida mu wàcc ci njabootam wàcc ci taalibe yi wàcc ci daaru salaam te yàlla nangul ñu ko bi jaay xayrul xadim Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul jërë jëf jërëjëf Mbacke Balla sëriñ Saliou Mbacke moom sëriñ Ibra Ndar moom maam Cheikh Anta kàddu yi am na solo rafet na ca leer na yal na la yàlla fay aw yiw ndax seere ak témoignage yu am solo yi nga xam ne def nga ci mbokki jullit yaakaar naa mooy lu olof di wax ni tudd sa mbaaxu waaye du wàññi sa mbaax dara daan mii yokk itam sa taxawaay yokk itam ñu xam ni njabootu sëñ Tuubaa gi ñoom ñëpp benn lañ tàmbalee Cheikh Bass Abdoul Khadir seere yu am solo yi nga xam ni def nga ko ci jëmmam waaye itam soxna Momy Kébé moom itam wuutu leen sax ci sëñ Fallou Galass si ndax yéen kenn ku nekk amoon nga yéene euh, jëfal sëñ Fallou moom itam mu jëfal ko kon su ko soo yëkkatee kàddu seere yi jëmale ci moom kon oyof la ak mbaax la waaye itam xam la ni njaboot ak sëñ Tuubaa gi yëpp benn lañ moo ko sabab kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla lafa la cat ba li nga bëgg liggéey Serigne Touba lépp nit ñaa ngi dégg sëb jëw ci lépp lu rafet la yàlla na lépp yegg ci barke Serigne Touba alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.